boo delloo ce position jox ma statut chef de position mais jox ko statut chef de l'opposition. wante ci biir waxtaan. mais wante ci biir waxtaan. ak gindikoo. ak gindikoo. ak dundalaat yéene yu njëkk ya. ak dundalaat yéene yu njëkk ya. ba ñu bees. ba ñu bees. mu ne ma waaw. mu ne ko waaw. booleeg Covid bi. booleeg Covid bi. lëmbaaje àddina bi. bi lëmbaaje àddina bi. booleeg li xew ci suñu continent bi. booleeg li xew ci suñu continent ndax bu ñu faf bàyyi. mais ndax bu ñu faf bàyyi. waxi chef de l'opposition. waxi chef de l'opposition. te ànd te ànd. nañu àndee woon. teewul eh eh sax woon. la ilaha li ñu xam. ñu boole ko ñu boole ko. def ko benn. def ko benn. suqali Sénégal suqali Sénégal ndeysaan. puisque responsabilité bi ñu ci am. mais responsabilité bi nga xam ne am nañ ko Sénégal. yemul ci ñun. mais yemul ci ñun donc. dafa am lu ñu ameel Sénégal. dafa am lu ñu ameel Sénégal. ameel ko am nag.